asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 19 septembre 2019 ñu ñëw yëglekaay yi moo xam sunu lamb la record ba ci leewtoo point net sunu lamb nag fa la mu koy njëkke yëglekaay bi tey dafa xëy ñëw wan ñu ñaari mbër ñaari VIP muy Gris Bordeaux ak kii nga xam ne moo di Balla Gaye numéro 2 la Lion de Guédiawaye ak le Tigre de Fass mu mel ni ki nag yëglekaay bi nee na ñaar ñii day est-ce que nag gër jàpp leen wala ëppal ñu ne ko lu tax sunu lamb ne li tax lenn dong la Gris Bordeaux diggante mag lak fay ko ci 60 millions mu lànk kandaare ne 75 millions lay bëre bu dee Balla Gaye numéro 2 ñu fay ko 90 millions ngir mu jàmmarlu ak Tapha moom itam mu lànk ne millions daal moom la ñu koy fay moo tax nag yëglikaay bi jàpp ne ñii moom est-ce que ëppal jàppu leen wala boog ñu gër suñu làmb xëy tey di ko wax ka nga xam ne moom bëre na ba pare moom nag ma nga xam ne moom la ñu wax diggante mag jëri combat ba nga xam ne nag ci la jóge am na loo xam ne nii day daa mel ni promoteur ba da ko kaa yoral ci xaalis suñu làmb xëy tey dalal kenn koo xam ne danañ moo yor chargé de communication Lac de Guiers de 2 muy Asu Diop moom nag la muy laaj Baye Ndiaye daal wala waa Alburax Events mooy li leer ba leer day nee na seen reliquat sponsoring la leen Baye Ndiaye yoral te nag fu mu nekk ni moom da leen ko war a jox ndax nag xaar bi yàgg na lool wala ñu ngay xaar bokk ba sax bëgg a xàddi sunu làmb xëy tey ñëw ba tey du ñu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne moom yëglikaay bi xëy na ñëw du ñu ko wax wala moom mu fay wax muy coach su jamono ma nekk sa France coach su jamono nag ci wàllum boxe lay yëngatu moom kii di Siteu daal le phénomène daal Lansar moom lay waxal ci MMA bi nga xam ne moom la war a jongante ji États-Unis moom da jàpp na ne day ci wàllum li nga xam ne moo di MMA bi daal Siteu li ko gën a man a génn ci mbir ma nee biir moom daal la jàpp ne moo ko ci war a mën a génne keneen koo xam ne ni moom dafa bëgg a wane boppam piir wala bëgg a gën a wane boppam moo tax nag suñu lam xëy na wan ñu ko muy booy bawal sol na ay dàllam nag jëwali réewum France bu fa jógee war a dem ca états ngir nag préparer boppam ngir saison yii ñu jëm mu gën cee wane ma ne mu gën cee bokk wana wala gën a mën a wane boppam sunu làmb xëy tey di ñu ko wax moom booy bawal ñii moom seeni garaat dafa gën a wàcc daa mel ni sunu làmb xëy tey wax nu ko muy waa école de lutte Double Less set combats la ñu def ci saison bi quatre victoire ak trois défaites yëglikaay bi xëy na tey nag ñëwal ñu ci mbir ma mu nga xam ni day moo dal école de lutte duuba lees moo tax nag suñ lam ne na li leer ba leer day bu dee saa cees la moom ci course bi moom daa mel ni nag moom da caa sax génn ndax nag bañ ko daanee mu jóge ca tam ba année balance la ca def moom bokkul ci ñi nga xam ne dañoo takk ngem bëre waaye yemu ca de ay cadre yi ngi yoo xam ne day ci école de lutte bu duuba lees la ñu ne ñoom it kenn gisu leen moo xam mbay gi junior la kii nga xam ne mooy booy ngaay tóoni ñoom ñetti cadre yi day sunu lam ne na saison balance la ñu def volcan tampon 2 ak ki nga xam ne moo di metti moom ñoom mu mel ni ki ñetti espoir lañ yoo xam ne ni day des leen a zappe waaye bàccu guy ak booy jóob ak kii waaw ñoom it day ñoom daal def nañu liggéey boo xam ne day bu mucc mucc ayib la sunu làmb xëy tey ñëw wax nu ko eto fils ak ki nga xam ne nii day moom moo di lees ak libidoor ak ki nga xam ne ni day mooy bu pasi ak papa sita ñoom itam daa mel ni day fi mu nekk nii ay petit pouce lañ yoo xam ne day ku leen pousse daal ñu gën a mën a wane seen bopp waaye yëglikaay bi day xëy na wan ñu nga xam ne mooy mbirum policier moom big pato moom mu ngay ki nga xam ne ni mu ngay wax ak Alaaji Mbay nee na Alaaji Mbay day dafa war a am courage ak fit ak sañ-sañ bu mel ni nag lekk sama avance man big pato big pato xëy tay tay ñëw di wax lu mel ni ki noonu waaye dañuy continuer fa nga xam ne nii day moom moo di ca Leewtoo point net mu mel ni ki nag li leer ba leer day Gambie yëngu woon na lool lool lool waa Leewtoo point net ñoo xëy di ñu ko xamal la ko gën a yëngal nag mooy diggante Baye Mandione ak xoyantaan seen jàmmaar la bu metti ba nga xam ne moom lañ defoon ca rajo ba nga xam ne nii moo nekk fa nga xam ne mooy ca Gambie loolu nag jaaxaloon na promoteur ba ba ay jooy def na ko fa moom jamaïcain Leewtoo point net moo xëy ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu waaye leneen loo xam ne Leewtoo point net xamal nañu ko mooy Amadou Kati Diop mi nga xam ne day mooy coach secret Ndakaaru bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo formé ki fi nekkoon roi des arènes di Yékini mu mel ni moom am xelam ba tey day mu ngay am yàqin ne ëllëg mën naa formé waat beneen koo xam ne nii wala keneen koo xam ne roi lay doon buur ci làmb ji waaye leneen loo xam ne dañuy dem fa nga xam ne moo di ca record fekki ko fa mooy kii nga xam ne nii day moo di Abdou Abou Ndour nag tey dafa xëy ñëw def ab jàngat ci saison bi nga xam ne moom la ñu génne mu mel ni ki nag jàpp na ne day 646 gala. nañ ko 328 millions moo ci jot a génn mu mel ni ki nag loolu Thiès moom moo ne ca kaw ca bopp ba Dakar moom 38 gala lañ fi bëree la fa jot a génn ci xaalis mu ngi toll ci 34 millions région de Dakar loolu moo fa génn waaye Jax moom itam day génne na xaalis bu bëri teg ko ci li nga xam ne nii day moom moo di lamb ji ci enveloppe loolu record moo xëy di ñu ko wax ka nga xam ne nag moom moo jiitu Dakar ci wàllum mbër yi daal tamit moom day xaw naa sonal sonal mbayang moom fii nga xam ne moo di Dakar donte mbayang moo ko jiitu waaye sa ne waaye fii nga xam ne ñii day moom moo di région de moom 461 gala ko fa lu toll ci 230 jot na faa génn ci ab xaalis waaye drapeau chef de l'État ñoom ñoo fa nekk juróom maanaam ñeenteeli place ba la ñu jël ñoom ñi nga xam ne nii day ñoom ñoo di waa Fatick waaye Kaolack cent cinq gala moom lañ moom lañ fa jot a bëre xaalis ba fa jot a génn tolloon ci trente huit millions cinq cent mille francs ñoom itam ñu nga ca pëjum ba waa Kaolack waaye Thiès quarante deux gala vingt six millions moo fa jot a génn yëglikaay biir sunu làmb xëy tey ñëw di ko wax Thiès mu mel ni nag premier la jël wala boog mu ngi yëglikaay bi nga moo di record moo xëy ñëw defal ñu boobu jàngat ci li nga xam ne nii day moom moo amoon ci wàllum lambi simple di ci saison bii nga xam ne moo jeex waaye xëy nañu wan ñu ci sunu làmbaw photo Bombardier kii nga am jàkkaarloog Tapha Tine ak Ama mu mel ni ki nag feles la mu wane mooy Tapha mooy premier choix bu fa mënta am li ki nga xam ne moo di Ama nekk deuxième choix waaye premier choix ak deuxième choix li leer ba leer daal mbir yi nañu xam ne laale jot na de te ay millions du fo tey ngeen a jël xaalis bi te jéem a laale ji ku ne woon sa morom leen ko mën waaye yàgg maar namoon naa internet yi waaye yow it defe naa namoon nga leen waaye faalit moon na leen waaye yàgg maar fenn du Gambia yàgg Gambi neex na yàgg waaye kenn du Jamaïcain ak Xadijatu Sow borom White House Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen nag si jàngatu arène bi mais balaa boobu ñu leen di jéggalu di leen masu xam nga ne fan yëpp la ngeen doon xaar mais nag Babacar ak équipe Leewtoo noo nekkoon si yeneen liggéey rien rek pour bégal leen Babacar mi ngi leen nuyu la wax mbokk internet yi namoon na la lool waa ndey kuma maa ngi lay fay ah, di la nuyu di la ziar yow tamit di nuyu yàgg maar mi bi di wax ne internet yi moom naman nañ ñu xam naa ne waaye ñu leen gën a nam wax dëgg yàlla rawatina bi nga xam ne seen yëf ñoo ko moom mais nag des fois affaire yi dafay am lu lay obligé dañu nekkoon fi nga xam ne ni mooy ci Gàmbi xam nga nekkoon fa di topp làmb rek parce que Leewtoo moom 100 pour cent kon fu mu nekk rek dañ koy toppi quoi mais internet yëpp nuyu nañ leen ziar leen di wax ne nam bu ñu nam benn rek nam nañ leen lu ko raw di la wax nag weer rafet na trop xam naa lii la indi nag serité gàmm bi la Babacar nu ñëw si si jàngatu euh, arène bi te nag nuñ dikk nu ubbeek sunu lamb sunu lamb daal li ngi wax si combat yi nga xam ni combat VIP yi nga xam ne mën na am saison bi si ubbee digg euh, muy kii di Gris Bordeaux ak euh, Balla Gaye Gris Bordeaux moom nee na d'accord na bëri ak Lac de Guiers mais li muy laaj mooy 75 millions Balla Gaye aussi d'accord na bëri ak Tapha Tine mais 130 millions lay laaj journal bi di laajte ne est-ce que ñaari mbër yi foqale wuñu Babacar mooy mooy ku gër wala ku nangam sangam foqale nag wóorul yaa ngi dégg parce que li tax wóorul mooy bu fekkente ne dañ la koo jiñ mu nekk ah mën ngaa fot te fot moom tamit mën nga caa jëlee jafe-jafe ñoom ñaar nag ay champion lañ di ay mbër wane seen bopp si làmb bokk tey ci mbër yi tee làmb ni ci ay écuries yu mag a mag mag moo xam école Balla Gaye la ci Guédiawaye wala écurie Fass la Balla fay nañ ko 60 wala boo 90 millions pour mu bëri ak Tapha Tine mu laaj 130 millions mbir mi moom dafa yombal lijjanti jaay la ak jënd rek lii la li li lii laa mën a jënde nga ne man samay bagage lii lay jar waaye tamit du tere ñun liñ leen di wax mooy kani nañu xam rek ne que retournement de situation day am ci lu mu mën a doon su amee nag yow da ngay xool situation da mu indi nga jéem a adapté ci loolu bëree parce que tamit 90 millions du xaalis bu tuuti déedéet tuutiwul moom mais nag boo boo yaakaar xëy na jar nga lu ko man ngaa jàpp na jar ko mais nag war nañu mën a négocier pour ñu jéem a solution pour que loolu ñu xool nu ñu waxtaanee ba régler les angles pour ñu mën a bëree yaa ngi dégg parce que Tapha Tine nag euh, ak Balla ñëpp a ko soxla Gris tamit buñ ne 60 millions lañ ko fay muy réclamer 75 millions digganteem ak Lac comme li ma fee laay wax fii rek yëpp benn mbir bi la maanaam ñu xool ni ñuy dijjantee bagage affaire yi pour que ñu war a mën a bëree seen combat yi que tamit euh, début saison lañ ne yenn euh, kase yi boo ko déggee. actuellement pour man ji ma waxtaan xool nooy def ak promoteur bi instant pour jël ko parce que des fois bu rombee euh, jamono yi ba saison bi gën a dingoot ba xaaj ba xaaj pour nga gisati ko dina jafe te itam defe naa ne ñoom seen gagne mooy bëre bi ñuy bëre. Babacar retournement situation boobu sax ki nga xam ne mooy Azou muy chargé de communication la de guerre moom daal mi ngi ne mi ngi ne mi ngi mi ngi woo Baye Ndiaye ne Baye lañ jox seen reliquat bi nga xam ni mooy combat la de guerre ak Boy Niang ba ah, xam naa tamit des fois promoteur yi dañuy dugg dañuy tëgg combat pour lu neex amateur yi joxe ay yoo xam ne après dem ba si biir ñu nekk si ay tolof tolof xëy tamit Baye Ndiaye si tolof tolof yooyu la nekk moo tax ba léegi mu mënugul joxe reliquat bi nga xam ni reliquat wu la de guerre de la waaw loolu moom maanaam moom Azou Azou Diop moom mooy chargé de communication lak moom mooy xëy di laaj seen reliquat ci fi nga xam ne ni mooy sunu lamb di ko laaj promoteur bi tëggoon seen combat muy bàyyi euh, reliquat nag reliquat sponsoring la waaw sponsor nag parce que bu fekkee li ñuy fay mbër mi la au niveau du CNC moom mbër ma da cay jot balaa bëri avance am su bëree ba pare day jot xaalisam reliquat nag ci sponsor loolu maanaam mbir la boo xam ne entre staff bi lay doon ak promoteur bi ñoom ñoo xam nu ñu géré woon seen combat xam nu ñu waxtaanee woon ci biirum sponsor yi ba day nekk situation boo xam ne moom li muy gën a engagé dëgg dëgg dëgg mooy le promoteur ak ñi nga xam ne ñi ñoo yore mbër ma parce que mbir la moo xam ne yoonu CNC boo koo xoolee du ci faral di nekk daal ñi muy engagé mooy ñooñu mais nag lu ci mën a xew mooy ñu ngi ñaan yàlla rek bu fekkente ne loolu noonu la demee yàlla na yàlla saafara ko ba nga xam ne ni moom loolu mooy reliquat sponsor bi dox seen diggante mu réglé wu parce que lu ci mënta xew mooy euh, ki tëggoon combat bi muy Baye Ndiaye am na mérite ndax mérite bi mooy ñëw na nekk xale am courage su indi ay millions décroché combat bu toll ni Boy Niang ak Lac de tëgg ko Sénégalais yëpp seetaan ko combat bi neex nit ñi bëgg mu mujj fa mujj lag am ci ndam kon tey bu ñu demee ba loolu nekk ci ñu koy wax wala ñu ñu koy dégg yàlla na ko yàlla rek léegi jàmm ba jàmm continuer daal. Amin Babacar journal sunu lam aussi mi ngi xamal ni booy Bawal jóge na fi nga xam ne mooy Sénégal dem ci France su fa jógee nag États-Unis la jëm lépp pour préparer saison bi di waaj a ñëw Babacar. waaw loolu de xel nangu na ko parce que boo bëggee def dara moom da ngay a faj waaw jóg ca jóg yu jëkk yee ngir préparer sa bopp Boy naa loolu la xam tax xam bu jàppee ni que daaw dafa bëree combat ak Marley daan. xëy na jàpp ne dina amat adversaire yu gën a metti yu gën a dàng nag boo ko xalaatee yaakaar ko et puis bëgg dara si làmb c'est très normal nday ku mën nga teel jóg préparé wu dem fi nga yaakaar soo fa demee boo dellusee Sénégal di di dool te boo amee adversaire di ko wan sa bopp xëy loolu kon ñu koy nuyuwaat di ko ziar moom booy bool ci demam boobu mu dem France ak fi nga xam ne mooy États-Unis mais di nuyu ñëpp daal. Babacar journal Euh, MMA combat MMA bi euh, Siteu daal su si bëggee bëree su si bëggee gagné il faut mu def daal bëree bëree simple maanaam lutte simple daal la war indi pas dóor bi ma si jaaxal MMA moom <laughs> door la gën a bëree ak lutte simple. waaw waaw que coach Dia mu ngi koy di ko ziar comme ni nga ko waxee sama xarit la wax dëgg yàlla nekk nit ku baax nekk fa nga xam ne nii mooy ca France di yëngatu ci mbirum boxe nekk lu mu xam ah MMA it yaakaar naa ne xam na ko moo tax mu jàpp ne Siteu bëre bi moo ko ci gën a arrangé parce que MMA boo xoolee ci ni ñu ko gisee dafa am ci biir bëre. maanaam bëri da cee bokk loolu nag xëy na dafa jàpp ne kon Siteu na gën a privilégié sama mbirum bëri ba parce que moo koy ëppal avantage ndax soo daanee sa adversaire yaakaar na da nga koy tiim di dóor ba benn moment bu mën wala nangam ñu àtte waaw kon daal li ma li am moom Siteu yaakaar naa dugg na ci mbir mi kon su jamono bi wax ak moom tamit borom xam-xam la kon defe naa pour man waxam yooyu na ko jël am lu mu ci jàngat comme ay leçon pour mu mën ko amal njëriñ ci li nga xam ne moom lay songoon muy MMA bi. Euh, ñu de jeexalee nag ak sunu lamb bi nga xam ne mi ngi ñëw si bilan yi nee na bilan euh, non bilan euh, écurie écurie de Valès Babacar def naa coono Gambie bi moo la bàyyeegul ba léegi <laughs> ñoom nag ñëw lañu nag sa école de lutte de seen bilan def nañu sept combats quatre victoires ak ñetti defeet ñoom daal nee nañu bilan boobu daal baaxul lu li nga xam ne moom la suñu làmb wax tey si journal bi. waaw bokk de boo ko defee rek suñu père Maxime Bergan doon wax naan rëbb ci coow la boo jëm rit ku jàmm may la loo ci mën a dégg affilié nañu bëri nañu am nañ sept combat waaye nag boo ko xoolee ak lii nga xam ne moo fa ne ci ay mbër da naan du bilan bu baax parce que sept combat kese kese kese moom vraiment ci écrit baaxul sans compter nga am ca euh, quatre victoire ak trois defet kon ça veut dire que mu lay wan ne foofa moom ni mu waroon doxe doxewu ni parce que itam lu mu euh, tey la fa nekk ci ay mbër bari na trop trop trop te tête de file ba yaakaar naa bëriwul ñeneen ñi ca des bëriwuñu muy Sa Thiès ñoom Mbaye Guèye Senior booy ngaay bu mbër yëpp gisuñu leen ñu wàcc ci géew bi donte am na ay xale yu kii mais loo ci mën a dégg daal nañu gën a redoubler d'effort pour que prochaine saison incha allahu rabbi combat yi gën a bëri ñu gën a wan a wane ñu gën a mën a wane seen bopp Babacar suñ jógee si bilan lutte euh, frappe bi nag lu ñëw nag ak bi nga xam ne dañuy defar tey bilan lutte simple euh, suñu mbokk Abou Nour boobu di ko nuyu def na daal bilan nee na si saison bi def nañu am na 646 gala de lutte simple loolu yëpp soo ko boolee promoteurs yi génn nañu enveloppe bu toll ni si 328 millions ki nga xam ne mooy région de Thiès moom moo organisé 461 gala décaissé 230 millions Thiès topp si deuxième trois euh, troisième Kaolack Babacar Fatick moo décaissé deux cent trente et quelques millions yi raison de Fatick Thiès topp ci waaw loolu itam ñu ciy nuyu Abou Ndour di nuyu waa record yëpp defe naa ne loolu loolu moo lay wan ne lutte simple bi mu ngi dox parce que bi 646 gala ak 328 millions ci lutte simple ci benn saison defe naa loolu moo lay wan ne kon mu ngi dox ci raison u Sénégal yëpp mais rawatina nag Fatick Kaolack Thiès. ak ak Dakar foofu la gën a wulee ñaay mais Fatick nag bu fa doxee c'est très normal parce que foofu defe naa nit lutte simple bu ñu doon wax baasam dëgg-dëgg dañ dugg biir région de Fatick kon yaakaar naa ne tey lutte simple bi daal mu ngi dox ñi koy tëgg tamit am nañu mérite moo xam promoteurs yi koy tëgg yëpp muy ñoom Jaksak ñoom Doudou Ñaan ak ñoom Ablaye Diop ak bu ñu limee dañuy juum bépp promoteur bu nga xam ne yaa ngi organiser lutte simple moom mën nañ ne am nga mérite te defe naa promoteur yëpp parce que mën naa dañ ko promoteur lutte avec frappe bi sax des ñu organiser ko kon daal moo lay wane lutte simple bi moom vraiment mu ngi marché bu baax a baax a baax a baax a baax si lutte simple boobu la ñuy des ba tey nañ a nag yi nga xam ne moom la ñuy organiser Dakar waaw loolu tamit c'est normal ordinateur ren wane na boppam daal macha allah wane na boppam parce que loolu du ñu def lu dul félicité ci ñaanal ko tamit mu jik ko parce que li noonu lay doxee ren kii day ayale bu ci at beneen baa keneen ki a bëri a bëri xale am yar la waaw parce que seq nañu ay waxtaan naa ko jàppal bàyyi mais nit ku yaru comme ni ko yeneen mbër yëpp defee di ko félicité ci loolu mais tamit di ci félicité koo wax benn nitam boo xam ne grand ordinateur waa maa ngi ko ciy félicité ci loolu bu baax a baax. Babacar suñu jógee nag record nañuy dem fi nga xam ne mooy Leewtoo point net Leewtoo point net ñu ngi waxal ne CNG samedi bi incha dina woone écurie responsable écurie ak école pour génne pour def bilan financier xam nga laaj fan la bi bu dagg fan lay jaar nag incha si arène nationale bu 11h jotee Alioune woon na fa. képp kuy responsable écologie ak écurie pour bu def bilan bi wax ni fan la xaas bi xaas bu ndagg mbëri fan lay jaar Babacar loolu moom yaakaar naa ne alhamdulilah lañ ciy wax dina war a intéressé ñi nga xam ne nii ñoo eh, ñoom ñooy amateuru lamb yi parce que tout le temps ñu ngi laajte ci côté xaalis ba bi ñuy dagg bi ñu fu muy dugg nangam sàngam ah moom mi nga xam ne mooy kilifa gi nag ñu dénk ko lamb ji muy docteur Alioune samedi mu woote moo fa nga xam ne fu mu fanaan lay doon ak ku bëgg ko wét li kon si kàttanu yàlla daal ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ fi yàlla bàyyi ba samedi ñu mën a fekk ji loolu la fa luñ fa wax tamit dinañ leen ko dégtal fi nga xam ne mooy ci Leewtoo TV ak Leewtoo point net suñ jógee si Leewtoo point net nu jeexalee ak Leewtoo TV ak équipe bi nga xam ne moo demoon Gambie si euh, diggante face à face ma Mandione ak xoyantaan kii di nga xam ne mooy promoteur bi daal amoon na coow bu ndaw ba amoon si diggante ñaari mbër yi mais daal dafa bëtt ay bëtam daal du jooy yaakaar ni combat bi yàqu na daal Babacar lu lu yéeme daal ki nga xam ne mooy Jamaïcain promoteur. loolu ñu ngi ko jàng fa nga xam ne mooy ci leader point net muy loo xam ne nii problème la bu amoon ci rajo ba jàppal bàyyil ah ci niñ ko xamee mu mu mu génnee maanaam xëy na affaire fa jàppoon ne ah. lenn mën na cee am te Jamaïque tamit xale la xëy na loolu moo émotion moo ko jàppoon ba rongo ñam génn mais nekk na xale boo xam ne tamit mën nañ xale la boo am jom boo am courage parce muy jéem a def ko jéem a réussir defe naa ne ku nekk rek tey war nga ko jàppale parce que li muy jéem a def sax mën nga ne atam tolluwul noonu mais am na courage di ko def kon defe naa ñun tamit dañuy am plaisir di ko gunge ci loolu muy def vraiment ñu topp ko ba Gambie mu def fa lu neex a neex ci face à face mais itam di ci profité du nuyu Gambien yépp ay Ndey Kumba ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu moo xam ki ñu dalaloon si hôtelam la muy Xadijatu Sow borom White House ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu personnel bi nekk si hôtel bi yëpp waaw di wax jamaykee daal lu mu jàpp nit ki nga xam ne nii moom mën na ci yow lu ne mën ko ci say nit ak say gan kooku lookutee doyul te jigéen la ñu koy nuyu bu baax a baax di nuyu ki nga xam mooy Paate Gambia moom tamit dalal bi rafet na xam nga ñoom jibal Touré xam nga ndongo Cissé ñoo ñëpp ñu ngi biir fi nga xam ne mooy ca Gambia non nday Kumba olof a ko. waaw Babacar da ngay bàyyi ma tëj après. acca bu la neexee. <laughs> léegi Babacar na si kàddu yoon leen tàggoo leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay mère Sow nuyu sama doom moo xam Diouf di nuyu Dadi Gueye naan ko namm naa ko lool di nuyu Astani Lay depuis Italie chéri Khadija Diallo depuis unité 26 di nuyu samay doom euh, bébé Penda bébé Rokhaya bébé Mam Diara bébé Fallou yaa ngi si biir